xam ne ñu ngi ko fay ñu ngi ko fay xaare mais déjà ce qui s'est passé wax naa ko sànq jeudi bi ak vendredi bi. Mm-hmm. Euh, xëy gars yi xëy nañ tey. bon xam nga euh, le nouveau maire wax waaw c'est le nouveau maire ñu nangu ko xam nga Aliou foofu laay waxee grandeur am xam nga nit li tax Sénégal yëpp naw ko boobu ak léegi te ma ko ciy félicité mooy grandeur bi mu am mooy bi résultat yi génnee mm. aussitôt à trois heures du matin la félicité yeewi askan bi nangu dogal bi xam ni ay dara mooy maire mu nangu ko léegi nag buñ dee taxaw naan Aliou day dem ca conseil bi parce que nanguwul dogal bi ku nanguwul dogal doo def loolu muy benn. Hmm. ñaareel ba aussi bi résultat yi génnee xam nga élection yi dafa am euh, suffrage direct ci la maire. mooy maire dañ koy élire direct au suffrage universel direct les juin au maire conseil municipal bi ñoo koy élire. résultat yi bi mu génnee Aliou nekk euh, ay dara nekk na maire waaye ci biir conseil bi amul majorité parce que li am mooy Benno Bokk Yaakaar am na 37 conseillers parce que dafa am 17 ci liste proportionnelle bi am 20 ci trois communes yi mu gagné foofu laa doon waxee ni. Hmm. ñoo gagné trois communes. 20 yooyu ñoo jóge ci trois communes yi 17 bi jóge ci liste proportionnelle bi liste proportionnelle boobu Aliou Sall moo ko. présider woon moo ko jiite woon. moo nekkoon tête de list looloo tax sax ñu bari xaw nañ poser question naan Aliou lan lay. def ci saa bi parce que Aliou conseiller municipal la. comme ni ko candidaa yeew bi nekkee jiite woon liste bi comme ni ko candidat wàllu bi nekkee woon ca saal ba jiite woon liste bi comme ni ko candidat gëm sa bopp nekkee woon ca saal ba jiite woon liste comme ni ko candidat buntu bi. jiite woon liste bi nekk fa comme ni ko candidat ànd nawle bi nekk woon jiite woon liste bi nekk fa kon da nga wax ne njuumte la ci Ahmed Aïdara mu ne ko génnal saal bi mu ne génnal saal bi parce que Aliou conseil municipal la jot convocation ci préfet ñëw wuy si tey mënoon na def procuration comme les maire man maire yi ma xam yëpp bu ñu musaan a perte dañu nekk conseil municipal mais dootuñu ñëwati ci conseil ba mais Aliou pour wane ni moom grandeur am ak bëgg liggéey géejawaay ak wane ni moom c'est un homme politique poli parce que comportement bi gis ngeen ko fa mu ñëw toog fa mu war a toog comme tous les conseillers. mais est-ce que toog boobu loolu lay firndeel am nañu jàpp yenn conseillers parce que jàpp nañ ne guerre dafa dugg ci ñenn ñuy wax. waaw xam nga loolu c'était xam nga loolu loolu mu assistel boppam. déedéet xam jot a liggéey en xam nga loolu. da ngeen di wax naan c'était supposé ndax lii la ndax lii la mais li ko yoon may mooy Aliou conseil municipal la ñëw na toog comme tous les conseils municipaux comme tous les conseils municipaux. c'est ça la vérité. donc droit la ñuy wax ak euh, wax li nga xamante ni moom la code bi wax un conseil bu ñu la convoqué da ngay ñëw boo amee empêchement nga def procuration mais amul benn empêchement lan moo tax du ñëw wala déet dafa war a ñëw wala warul ñëw dafa war a ñëw parce que c'est conseil élu te conseil bu nekk tu représentes mille sept cent cinquante voix d'après les résultats à Guédiawaye hmm. conseil bu nekk mille sept cent cinquante personnes votel nañ nga bëgg a jël seen voix yëpp teg ko sa kër ndax lan dama perte du ma ñëw Aliou c'est un politique moo tax mu ñëw toog assister. Hmm. léegi nag ginnaaw dafa ger nee nañ ñi nga xamante ni ñooy yeneen coalition yi nga xamante ni ci ñun lañ bokk. parce que ay liste parallèle lañ woon. te ñooñu ay kilifa lañ xam nga foofu laa lay waxee ni parfois politique booy wax aussi da ngay wax lu la wóor te bul ñàkk ba tax ngay saaga sa nawle. di ko hmm. takkal deram loo xamante ni rafetul. parce que munoo taxaw xool ay responsable yu toll noonu nga ne dañ leen a ger mais ger leen pour la ñooñ ay homme politique xam seen mission. xam ni ñoom dañoo war a ànd ak Benno Bokk Yaakaar pour pour ñu am cohabitation ci bureau municipal bi nga ne dañ leen a ger Aliou amul lu muy gere nit ci politique ah non loolu amul Aliou amul lu muy gere politique amul xaalis bu muy jox ne di ko ger amul terrain bu muy jox ne di ko ger loolu ñuy wax ay waxu kasaw kasaw la ay wax yoo xamante ne la booy diig da wut foo jafandu mais foofu ñu jafandu baaxul parce que ñooñu ñuy saaga ay nit yu baax lañ ay nit yu sell lañ ay nit yu gëm seen bopp lañ te man xam naa leen kenn ku ci nekk billaahi wallaahi taalaa kenn ku ci nekk faale woo un franc wu doomu aadama pour jël décision parce que ñoom ñëpp ay kilifa lañ donc loolu ay wax la yoo xamante ni maanaam dama ci sax rus dama ci am gàcce ñu koy wax ci seen nawle seeni i parce que dès leer ko yéen a bokk conseil municipal bi ñu say collègue lañ kon sa collègue waroo ko wax wax bu ñaaw parce que même bu farut ak yow c'est ton collègue te da kon booy wax dangay wax lu la wóor amuñu kenn kuñ fa ger mais kon dafa mel ni yéen tàmbaleeguñu ngeen am déception seen njiit yu yees yi waaw mais déception boobu dafa metti parce que xam nga xam nga conseil municipal ay sensibilité ay sensibilité politique la hmm. xam nga tey un maire dafa war a xam ni moom du moom mooy dogal c'est le conseil qui décide gestion collégiale la mooy nekkul que ni diw àndu ak man rek warul siéger sama wet assemblée nationale gis nga dañ fay teg ay projet de loi ñi ñi contre ñi donc conseil municipal noonu la mel c'est la loi de la majorité hein c'est la loi de la majorité loolu la ñuy wax aussi moom laa lay expliquer mais parce que tey moom laa baal ma ñëw rek waa Guédiawaye baal ma ñëw mooy projet bi mu leen jaay la man baal ma ñëw foofu noonu yéen ngeen ko téye di ko bloqué waa benn bokk yaakaar def naa ci conseil municipal opposition pendant sept ans mosuma voté contre man Ablaye pendant sept ans parce que maire bi fa nekkoon ko xalaat non parce que maire bi fa nekkoon lu ñu daan def dañ daan waxtaan dañ daan xool ni lii muy proposé lu am solo la mm. donc cohabitation bi du du du fait que ko bëggee def rek c'est la guerre non no non c'est pas ça mm. parce que loolu mooy li am ay sensibilité politique ñooy composer la conseil municipal donc boo indee sa projet de wala nga indi sa sa sa sa sa loo xamante ne lu mu mënti doon sa autorisation spéciale wala sa projet wala sa modification budget lépp conseil bi dañ koy gëstu luñ ci d'accord ñu ànd ci luñ ci d'accord ñu ànd ci mais conseil bi encore est souverain maintenant le bureau municipal bi muy wax naan voilà dañu bëgg a euh, hold-up politique la ak yooyu ñu respecter la volonté divine volonté populaire la volonté divine mooy li ci urne yi mooy yàlla fal na la mais joxu la majorité volonté populaire mooy li ci urne yi mooy fal nañ la sans majorité c'est ça la vérité parce que tey dama bëgg aussi bu ñuy relater ñu wax les choses telles qu'elles sont moom 39 conseillers la am xanaa kon benn bi yokku ci moom bi ñu voté mu am 40 dañ ko jënd ñoom xanaa kooku dañ ko jënd. donc nañu bàyyi mais comprendre tamit. dama ni moom gagné na soxla majorité pour. mu mën a gouverner loolu mën comprendre mais gagné boobu mu soxla majorité tey. majorité boobu noonu du moom moo ko soxla population géej Guédiawaye ñoo ko joxul mais li fa am ñun inventé wuñ fi dara tawul ci asamaan si wadd urne yi ñoo génn résultat yi ñoo génn. moom mu am 39 conseillers. ñun ñu am 37 te yéen wóor na leen ni loolu da koy défavorable. parce que du ko défavorable. moom moo dem fekk Racine Talla buntu meereem. ni ko dinaa la déloger. gañe woo da nga sàcc élection yi Racine Talla tontu ko so loolu mooy la riposte. génn ni ko di nga gouverner parce que li tax ma wax ko loolu. Mm. mooy tant que mi ngi am comportement bii xamul ni moom maire la di am violence. ban comportement di utiliser de gros mots. comme li fa amoon korog ci saal ba. gis nga bi ñu defee dépouillement bi xam nga bi ñu ñëwee dañu def rappel 44 présents 84 présents ñoo fa nekk ak ñaari procuration ak benn ñaari procuration 83 présents ak benn procuration ak deux absents bi ñu defee rappel ñu indi procuration yi ñaari procuration yi. benn bi ñu ne dafa am problème ñu soulever ko ñoom ci salle bi ñu dindi procuration bu benn bi baax na ñu continuer ñu commencé vote bi vote bi di dérouler normal moom muy présider vote bi am secrétariat préfet toog presse bi yëpp a nga fa vote bi di am normal posé wul benn problème bi ñu demee ba résultat urne génn yéen dégg ngeen ko la mu wax ba mu xamee daa perte daf ne nañ yàq vote bi la ca dendal la man rus naa ko def parce que man du ma saaga ci ay mbooloo mm. mais gis ngeen àdduna bi yëpp dégg nañ mu ne nañ yàq vote bi yokk ci saaga yéen ñëpp ko dégg te c'est ce qui est malheureux dans tout ça am na ci sax seen confrère yoo xamante ni tey euh, bu Aliou defoon loolu tey kon ay plateau ñooy am ci àdduna bi naan Aliou Sall saaga na Aliou Sall saaga na mais malheureusement gisuma sax ay plateau yoom teg nañ ci xam xamal ko ni ko li nga def nii erreur la li nga wax nii du waxu nit du waxu njiit mais kenn waxu ci am na ci seen benn confrère boo xam ne sax dafay perdre sax logique am ci ay analyse muy hmm. Serigne Saliou bi nekk xawma du belaan dama koy seetaan mais damay xam ni kii jaratul la seetaan parce que amatul logique analyse yi def amatul logique mais un maire bu taxaw saaga ni nañ yàq vote bi ñëpp di ko gis ngeen bëgg ko jox dëgg naa non élégance politique élégance fii naa nga mais c'est du n'importe quoi parce que élégance politique mooy lan mooy nga perte def ni Aliou Sall def félicité ki nga ki nga comportement Ahmed la bett non bettu ma bettu la lu tax mu may bett man li ma doon bett mooy mu yoroon comportement bi Aliou yor ko rek yaru dal supervisé toog place am xam ni mooy maire. lu tax nga wax loolu mais bettu ma te di xaar yeneen scandale ci kanam parce que moom noonu ko yàlla bindee. naka ah mais dafa xam ni kilifa la man man man man j'ai beaucoup de respect pour lui mais malheureusement aussi il faut que mu xoolaat boppam xoolaat encadrement am xam ni maire yi du ay caaxaan c'est une institution dès lors que ñu takkal la écharpe bi hmm. drapeau Sénégal moo nekk sa ndigg kon looy wax war nga ko xam comportement bi nga war a def war nga ko xoolaat ba ci sa entourage war nañ xoolaat sax lu baree bari justement ba entourage am xanaa da ngay bi effectivement loolu que boo takkee écharpe a am hmm. xam ni bu la yàlla dénkee responsable dafa am comportement booy am korok Aliou Sénégal gi yëpp a saluer son comportement saaga nañ ko fa buntu xatal nañ ko fa wax nañ ko fa lu nekk jiñ nañ ko fa lu nekk waxal nañ ko lu nekk mais dafa dal ànd ak sérénité parce que Aliou c'est kilifa la et justement am na yu muy def ci suuf. non yooyu tamit mooy irrité Ahmed. ndax Ahmed wax na ko ni élégance bi war yëpp jox naa la ko. déedéet xam ci bi ñu bi bi élection yi jeexee ak la ca am yëpp. Mhm. daje nañ ci ay bërëb mu jox ko wàccuwaayam. Mhm. yëkkati ay kaddu yu rafet ko ci moom loolu di ko seede. Mhm. du benn du ñaar. mais bi fa la ngeen bëggoon def ci suuf loolu la ameen nangutoon xam nga mooy wan ka ni doo am majorité li nga bëgg yëpp du dox biñ fa ñëwee korook bi ñu ko installé Aliou def na discours bu rëy ci moom yéen a nga fa woon def na discours bu am solo ci mais nag politique du doxee noonu bàyyi ma wax la rek waaw mais mun ngeen di wax ci kaw waaye li ngeen di def suuf loolu la nga xam nga li am solo mooy li nit ki ay jëfam ak ay waxam ne méngoog li am Aliou Korok ba mu waxee la muy wax ci discours bu rëy ba mu def ci am na ci salle ba bañ ko installé ba mu paree daa toog ci saison léegi nag vote bu am résultat yi génne lii mu génne yow nga ne du fi amee parce que du ma ko nangu parce que dañ maa gagné te bu gagné woon da koy accepté mais comme gagné nañ ko duma ko nangu mais loolu mooy waxi lan xam nga nit bu juumee dañ naan ko dangaa ngaa juum nit bu newul ci dëgg dañ naan ko newu ci dëgg parce que loolu mooy code bi loolu la wax bureau municipal ak euh, conseil yi ñoo koy fal hmm. te conseil yi fal nañ seen bureau municipal fal nañ seen premier adjoint au maire muy Cheikh Sarr ma koy félicité de passage noonu la ñu war a continuer fal yeneen quatorze adjoints yi. li mu def vendredi nag kon lu mu. li mu def vendredi yi lan la def vendredi. ah vendredi dajawaat na waxoon na ne de gré ou de force dañuy installé. waaw moom dès lors qu'il est installé dès lors woon na ko ce jeudi là. c' est le maire bu ko neexee mu dem di ji maire bi toog liggéey. Ah. kenn terewu ko fi mu nekk nii bu ko neexee une fois installé yow ay déroulé ah. waaw donc loolu la. Euh, non je veux dire li ngeen di sàkk pour mu continuer laa wax ñu koy def. non loolu élection bureau municipal bi loolu dina continuer par la force parce que tamit mënul maire mënul exercer pouvoir am mënul exercer ko maire am te amul bureau municipal loolu mënu nekk il faut que nga am bureau municipal muy muy orienter politique gu conseil municipal bi ngeen di ngeen ni dérouler parce que waxoon naa ko encore une fois. maire du moom mooy décider conseil bi mooy décider maire day proposer conseil bi validé gis nga Korog def na benn erreur bu mag. mooy bi mu jógee wax ni la séance est levée. yow ñu ngi installé le maire installé le conseil municipal mais bala ngay lever la séance da ngay demander autorisation du conseil municipal ni ko ah est-ce que je peux lever la séance. conseil municipal bu taxawagul. bu taxaw parce que dès lors qu'il est installé installé nañ conseil municipal bi parce que dañ leen a convoqué ñu ñëw ci salle bi ñu installé le maire. mais bu fekkee élection amul. dama non non le conseil. wala boog élection bi yeggut non non loolu bureau municipal ngay wax. man le conseil la bi. les quatre vingt quatre conseils yi fa nekkoon mu jóg wax ni la séance est levée xam nga loolu. loolu ñàkk xam li nga yor la. ah oui non oui ku xam li nga yor doo fekk conseil municipal bu toog nga ne la séance est levée da ngay demander autorisation. di conseil pour lever la séance il ne l'a pas fait jóg na wax ni vote bi baaxul yoon jeex na la séance est levée léegi lan moo tax moom bi mu nee la séance est levée génnul salle bi est-ce que yéen posé ngeen question. lu tax génnul salle bi lan moo tax génn parce que xam nañ li mu def du jàmm parce que moom warul lever la séance. conseil bi ñooy lever la séance tey conseil bu ñu décidé woon ni dañuy lever ñoom ñëpp ñu ànd génn. Hmm. à l'unanimité mën mais ñëpp ngi toog nga ne la séance est levée taxaw nangu woo te demoon na ba ci biir ñëw duggaat toog jël 16e toogaat. parce que yooyu yëpp moom laa lay wax xam nga yooyu yëpp problème de comportement la ak problème de entourage xam nga maire aussi du ay caaxaan encore une fois sénégalais yi loolu mooy seen problème mooy dañuy dañuy dañuy jéem a daaneel wala ñuy xeex nit ci yeneen aspect yoo xamante ni sax bokkul sax ak ay résultat am ba fal loo xamante ne dañuy toog di ko. lan la 400 euh, mille yi dafa déteindre ci ci campagne. non du mbirum pétrole beeg gaz. non loolu loolu xam nga loolu moom yooyu dafa déteindre ci campagne. xam nga loolu loolu histoire bu yàgg la. Euh. te loolu moom duma ci ñëw. non ci li nga junj sànq moo tax sama xel dem ci li nga wax ni sénégalais yi ñu fal. ñu fal maanaam dañuy topp kenn ci dara rek. ñu ñu ñu ñu folli ko fekk na xëy na ay préjugé la su ma la déggee. ay préjugé la parce que tey problème boobu ngay wax noonu. Mm. bañ ko yóbbee justice. ña demoon sax bañ leen waxee preuve yi ngeen indi ay copie de journal lañ indi naan d'après le journal d'après le journal kon donc yooyu c'est des rumeurs xam nga manipulation bi dafa yàq dëkk bi te gis nga politique nit ñi war nañ ci di xool yàlla tuuti man de personnellement. Hmm. bëggoon naa ko wax sax sama commencement émission. mooy mooy man politique du ma ci fen duma ko defee ak xol parce que wax dëgg yàlla dama ci jaayante ak sama sëriñ daf ni ma bàyyil politique. bàyyil politique bàyyil. ndax lan mën na bàyyi. waaw parce que jàpp na ne lu muy wax daf ko war a wóor te jàpp nañ julit warul lor moroomu julitam ndax ay intérêt politique mu ni ma looloo tax ma bëgg nga bàyyi ma ne ko ah sëñ bi de man sori naa ci trop teg ma cee ñaanal rek bu ko defee ma bañ ci juum juum gi nga xamante ni xalaat nga ni mën na am mu ni ma kon da may garanti ñaar ma ne ko la mu ni ma bul ci fen parce que julit du fen boobu ba léegi lu ma ciy wax lu ma leer la du ma wax lu ma leeru li ñu tàmbali ci début ba léegi amul dara lu ci mën a loolu adduna bi ko seetaanandoo beneen ci topp mooy